mbokk yi incha allah ñu ngi dajewaat ci suñu téere bi di minhajul muslim yegg si woon ak yéen ci li ñuy tuddee anwaaul buyuil mamnua mamnua ba yegg si woon ci juróom-ñaareelu bunt bi muy bayul urbun bu dee ñu yor mool bu bees bi ñu ngi woon ci page trois cent trois ñu ngi noonu bayul urbun ci anwaaul buyuul buyuil mamnua waaw mooy juróom-ñaareel bi muy bayul urbun waaw xam naa ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci dajale gëm ñu dajale ci ab néegam ñu fas yéene jël benn bunt ci wàllu diine ngir jàng ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax naan man salaka tariqan yaltamisu fi fihi ilman sahala allahu bihi tariqan ila aljanna amul kenn ku jóg jël ci yoon di ca sàkku xam-xam xam-xam boobe mooy lan mooy xam-xam bu aju ci diineem lu dul yàlla dana ko yombalal yoon ba koy jëme ci aljanna te tamit mbokk jullit lii ñuy jëfandikoo mooy li ñu toll nii di wàllu njënd ak njaay gis nañu ne taxoon na yàlla yónni ab yonent muy complété la moromi yonent yépp indi woon te mooy baasu yàlla yónni yonent mooy tawxid waaye ku mel ni Shuayb alayhi salaam yàlla nga ko yónni woon ngëree mu réglé commerce bu bon bu waa dëkkam doon def su dee bokk nañu gis bind bi kon day wax ni bayul urbun mooy njaayum dawal dara laa yajuuzu lil muslim an yabi'a bay'a urbun du dagan ci jullit muy jaay njaayum dawal aw yaaxuza al urbuna bi xaal wala muy jël ak dawal ci lum mën a doon xaal bu mën a doon lama ruwiya anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu naha an bay'il urbun ndax solo nañ ci yonent bi ne tere na njaayum lii di dawal dawal ca ca ca njaay ma qaala malik fi bayaani fi bayaanihi malik ba muy leeral dawal googu huwa an yashtariya rajulu shay'a mooy benn waay ñëw jënd ci nit ki dara aw yaktariya daaba wala mu ñëw luyoo ko benn waruwaay summa yaquul ataytu ko dinaaran man day jox naa la dinaar ala anni in taraktu silaa te mooy su ma bàyyee marchandise mi aw ilkiraa fa ma ataytu laka su ma bàyyee njaay mi njënd mi wala luye bi li ma la jox dalay ñeel mbokk li nga xam ne mooy ba bay ul orboon ñu tuddee ko dogal njëkk loolu ba suñ jamonoy tey day am suñu daral yi benn waay day ñëw fii waxaale benn xar wala nag ngeen wax ci prix mu yëkkati dix mille jox la ne la bu subaa ma ñëw fay si bu ko jaay kenn bu subaa bu ñëwul dix mille yooyu borom jur ga jël ko loolu da ngay gis ne moom dane dafa xaraam na am ñu daliloo ci benn xadis boo xam ne rasul sallallahu alayhi wa sallam da ko da ko tere doonte ne ne loolu mbokk mooy la nga xam ne mooy li ñuy tuddee mazhab ahmad amma boo dellu woon ci yeneen mazahib yi rawatina lu mel ne mazhab malik ñoom nee nañ loolu lu dagan la ñoom nee nañ loolu dagan la lu waral loolu mooy ñoom xadis bi wax naan yonent bi da koo tere pour ñoom xadis bu yorul ñaareel bi tamit gisoon nañ ko ci doxalinu sahaaba ya rawatina ku mel ne Omar ibnul Xattaab kon ñu ne waa ji bu ñëwee di jaay yow nga ñëw waxaaleeg moom ba ngeen juboo nga ne ko danaa fay si am na droit ne la déet bàyyi fi dara soo xam ne boo ñëwul man duma perte ndax tant que dig bi ngeen waxante jotul moom amul droit di ko jaay keneen loolee kon ñu gis ne bu dee comme ni ma la ko waxee ci mazhab Ahmad nga xam ne lu ci bëri mbokk bi da ciy gën a jeng jëm donte le téere bi tënk ko ci benn mazhab waaye ñoom dañ koo araamal amma nag bu dee li ëpp ci borom xam-xam yi dañ na loolu dana doon loo xam ne nii lu dagan la wallahu subhanahu wa taala aalam juróom-ñetteelu njaay mi lislaam tere bayu ma laysa inda nga jaay loo xam ne amoo ko nekkul ci yow laa yajuuzu lil muslim an yabia silatan laysat inda du dagan ci julit nga jaay marchandise moo xam ne nekkul ci yow aw shay'an qabla an yamlikahu wala nga jaay loo xam ne même bu nekkee ci yow it yow moomagoo ko lama qad yuaddi ilay ilayhi dalik min aziyati albaa'i walmushtari ngir loolee nam mën a yóbboo ci lor kay jaay ak kay jënd fi xaali adami alxusuli ala silati almabia te buñ demee ba mënuñoo am marchandise ba nga xam ne dañ koo jaay walisa qaala sallallahu alayhi wa sallam laa tabi ma laysa indak yeneen ti mën a bul jaay mukk loo xam ne nekkul ci yow wa naha an bayi cheyin qabla qabdihi tere na it ngay jaay dara fekk ne yow jëlagoo ko noo am mbokk bi mel nii romboon nañ ko suñu dars bi passé ba suñu mbokk bi indi woon ci ay misaal mooy bari na ay commerçant yoo xam ni benn waay day jóge fa la ñëw di commandé indi ab listam lim commandé yépp nga jël ko calculer la ko ne ko temps la te fekk li muy commandé presque genn wàll gi amoo ko léegi rek nga war a dem di ko dajale pour indi ko mu ne dañ ci gis ay cas yoo xam ne dañuy dem ba horaire bi ñu war a jër taxaw ñu ñëw ci borom bitig bi ana sama marchandise muy xiin xiini fu ne mu dugg fa looloo tax mbokk islam du nangu loolu islam la muy nangu mooy nit ki mën ngeen waxaali ci prix ba juboo même bu dee da ngaa nekk ab teefenke wala courtier wala nuurumaan comme ni mu nekk ni ñu koy wax ci marché yi mën ngeen wax ba juboo waaye bi charte mooy juboo ngeen ci prix nga dem uti marchandise mi ñëw jaay ko waaye ngeen juboo ci prix mu jox la xaalis nga dugal sa poos ba pare nag dem di wëri marchandise islam du nangu loolu loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax la nga xam ne yi tamit marchandise la téere bi mu ngi nii yow moo moo ko benn waaye ñëw di ko jënd nga xam ne mën nga koo jaay cinq mille ndax boo paree mën ngaa yow jënd téere bi ci trois mille loolu it islam du ko nangu da ngay moom ba pare doo ko jaay waaye doo jaay loo xam ne moomuloo ko loolu kon mooy li nga xam ne yonent bi saa sam da koo tere su ñëwee ci juróom-ñeenteelu tere gi bay u dayni bi dayn mooy jaaye bor ci bor laa yajuuzu lil muslim an yabia daynan bi dayn doo daganti julit muy jaay bor ci kaw bor is huwa fi xukmi bay il maadum bil maadum ndax loolu mooy ngay jaay loo xam ne amul ci loo xam ne ni amul wal islam laa yujiz hada islam du daganal loolu wa misaalu bay ad dayn bi dayn buñ la doon jox misaal ki jaaye bor ci bor an yakuna laka ala rajulin qintaar bun nit ki mu yoral la loo xam ne day nekk bërigo ci pepp ila ajalin ba ci dig boo xam ne waxante ngeen ko fa tabi'ahu ila axar bi miyati riya- riyaalin ila ajal nga dem ci keneen na ko hey ci yoral na ma bëriw nga pepp kaay ma lebal la ko ba ci dig kon kay da laa leboon yow it nga wër wëlbati ko leble muy bor ci bor wa misaalu axar beneen misaal an yakuna laka ala rajulin sha benn waaye ngi yoral la benn gàtt ila ajal ba ci dig falama yuxillu al ajal yajizu al madinu an adai an adaiha lak bañ demee ba dig ba ki la yoraloon bor lott ci man la ko fay fa yaqulu laka biniha bi xamsina riyalan ila ajalin axar mu ñëw ne ah xar ma ma la yoraloon kat waral na koo fay jaay ma xar mi nga lebal ma ko ba ci digteel ngeen ut beneen dig fa takuna qad bi'tahu daynan bi dayn su boobaa da ngaa jaaye bor ci kaw bor waxat naha rasul sallallahu alayhi wa sallam an bay il kaali bil kaali yonent bi tere woon nañu jaay bor ci bor ay dayn bi dayn mi ngi noonu ca loolu daana amit ci ay mbir comme benn waaye ngi nii yoral la xaalis am keneen ku ñëw ne la man kat danga may fay sama xaalis boo ko yoral nga ne ko léegi diw daf ma yoral nangam demal ma jaay la ma faye la bor boobee loolee mbokk ci lay dana dugg ci lu mel nii allahuma lu dul ci ay kaa yu ko lislaam di maye mooy waaj moom kat am na loo xam ne ni mën na ko fayee te mooy ñaareel ba nga boole ko ak moom ngir teggee ko bor jubluwoo ci jaay bor waaye teggeeku lor moo tax yonent bi alayhi salaam daan wax naan iza utbi'tum fatbi'u buñ leen toppaloo na ngeen topp fukkee li njaay mi islam gën a tere mooy bay ul iina mooy jaay mi ngi noonu mooy jaay loo xam ne da nga koo leb jaay loo leb laa yajuuzu lil muslim an yabi a shay'an ila ajal mu jaay nit ki dara mi ngi noonu ba ci dig ay dig bu mu ko war a fay suma yashtariyahu mimman ba'ahu lahu bi samanin aqala mimma ba'ahu bihi gannaaw ba mu jëndee ko ci njëg gu gën a néew gam ko ko jaayee ay gam ko ko lebele li annahu ida ba'ahu iyaahu bi ashra su dee waa ji daa ñëw masalan mu jaay ko benn mbir ci dix mille njaay ma nekk njaayum leb danaa la fay si fin du mois wala dig bu ñu waxante suma shtaraahu minhu bi xamsatin gannaaw ba mu jëndaat ko ci waa ji ci juróomi mi ngi noonu ci cinq mille francs yakunu ka man ata xamsa ila adalin bi ashra loolu day mel ni ki nga xam ne dafa leble woon cinq mille pour waa ji war koo fay si dix mille ñoo yem képp bal da ngay gis ne bii sax moo gën a bon ndax bii naxante la ak yàlla wa hada aynu riba nasia almuharram bilkitab wa sunna wal ijma te loolu mooy riba bi ñu yeexe nga xam ne dafa araam ci sunna ak alquran ak ijma te mooy ngay lebal nit ki bu lay war a fay mu teg ci dara wa dalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daana wax ci xeetam bi day ida danna naasu bi dinaar wa dirham nit ñi day buñ demee ba nay téye lii di dinaar ak dirham duñ ko nangoo joxe wa tabaaya'u bil ayna ñuy nekk di jaayante ci forme bi ñu wax sànq nga xam ne waa ji bu jaaxlee ñëw nga lebal ko dara jëndaat ko ci lu gën a néew wa taba'u aznaab al baqara ñu dem toppi la nga xam ne mooy geenu nag ya di sàmm rek wa tarakul jihad fi sabilillah ñu bàyyi jihad ci yoonu yàlla anzala allahu bihim bala yàlla dana wàcce ci ñoom benn nattu fala yarfa'uhu hatta yuraaji'u diinahum natt ba du ko teggi lu dul dañoo dellu ci seen diine te loolu it mbokk da ngay gis ne tey jii bokk na lu ñu yàlla nattoo mooy jullit ñi presque amuñu kàddu ci kaw suuf lu ci bari nag day dellu ci ñoom te bokk na ci jëflante wàllu riba rawatina riba naxante ak yàlla ndax ki nga xam ne daa ñëw carrément da la ah cinq mille laa la lebal léegi dix mille nga may fay kooku riba la bu leer bu bon waaye ki jàpp ne moom daa mën a nax daa bëgg a naxante ak yàlla waa ji bu ñëwee leble cinq mille war a fay dix mille day day day am problème yow su wàll bopp nga ne ko déedéet léegi kaay ma lebal la lii ci dix mille gannaaw ba nga wëlbati ko jënd ko ci moom ci ci ci cinq mille loolu mooy mooy mbir bi kon noonu loo ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee gannaaw ba boo jàngal sa téere mu ne wa qalat imraatun li aïcha benn jigéen ñëw na ci yaay aïcha ne ko inni bi'tu gulaaman min zayd ibnu al arqam bi samani miati dirham nasi'a ila ajal man de dama amoon benn jaam ma lebal ko kii di zayd ibnul arqam ci juróom-ñetti téeméeri dërëm yoo xam ne dama ko ko lebal waaye wa inni ishtaraytuhu minhu bi sitti miati dirham naqdan waaye gannaaw ba nag ma wëlbatiku jëndaat jaam bi ci moom ci juróom benn téeméeri dërëm yoo xam ne dama ko ko fay ci saasi fa qaalat laha aïcha noonu la ko suñu yaay Aïcha waxe radiyallahu anha bi'sa ma ishtarayta wa bi'sa ma bi'ta aka ñaaw li nga jënd aka ñaaw li nga jaay inna jihaaduhu ma'a ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam qad batala illa an yatub ba demee ne Zayd jihaad gim jihaad ak yonent yépp màbb na xanaa lu dul daa tuub te loolu mooy lan mi ngi noonu mooy lam jëflanteeg ndaw si mooy lebal ma juróom benni téeméer danaa la fay juróom-ñetti téeméer su ko defee fu ñu ko daganele ca jaam ba lañ ko jaarale jaam baa ngi nii lebal naa la ko juróom-ñetti téeméer wëlbati ko jaay ma ko juróom benni téeméer soxla si jox ko juróom benni téeméer jaam bi dellu si ci ay loxoom ba pare zet yoral ko juróom-ñetti téeméer loolu mbokk kon ci façon njaay yi lislaam araamal la allahuma lu mel nii day am ba tey ca usurier yi nga xam ne dañu nekk ci sun jamonoy tey amma bu dee fukkeelu njaay ak benn bi lislaam araamal mooy bay ul xaadiri lil baadi mooy ki nekk ci dëkk bi jaayal kaw kaw ba indi woon marchandise am ida ata albaadi aw algarib an albalad bi silatin heure boo xamee ni nii kaw kaw ba wala doxandéem ba daa ñëw ci dëkk ba indi marchandise am yuridu an yubiaha fi suuq bi siri yowmiha mu bëgg a ñëw kat jaay ko ca marché ba ci prix bisu keroog boobee laa yajuuzu lilxaadiri an yaqul lahu du dagan ca ka dëkk ci dëkk ba mu naan ko utrukil sil'a indi bàyyil sa marchandise ci man wa ana abi'uha laka ba'da yawmin aw ayyam bi aksar min si'ril yawm ma jaayan la ko gannaaw tey wala ay bis ci lu ëpp njëgu tey wannaas fi xaajatin ila tilka sil'a te fekk nit ñaa nga aajo wowoon marchandise moome li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa yabi xaadirun li baadi da'u nnaasa yarzuqu llahu baadahum min baad loolu mbokk mooy kon kaw kaw yi buñ mësaan ñëw ci marché bi da ngay gis ne prix dugub yi gerte yi day changé tey prix bi mën na nekk trois cent suba mu nekk quatre cent su ko defee ki ñi nga xam ne dañoo ñëw ci marché bi prix bañ fa fekk loolu mooy seen chance amma nag yow mi dëkk ci dëkk bi kaw kaw bi ñëw nga ne ko bul jaay bàyyil ma dencal la ko gannaaw ba danaa ko jaay du gën a cher lool yeneen bi ne déedéet ñëw na ci marché bi di jaay bàyyi ko mu jaay nit ñi ku nekk yàlla jël la yàlla wërsëgal ci yow loole kon mi ngi noonu bu ñu dee loo ci fukki liw bi ak ñaar ci li lislaam tere mooy shira mooy shira u mina rukbaan mooy dem jëndi ca gawar gay ñëw te segul dëkk ba laa yajuzu lil muslim an yasmaa sil'a qaadimatun ila bala ila al balad mu dégg ne am na kat marchandise mu ñëw ci dëkk ba fa yaxruju li yatalaqaaha min rukbaan mu dem ngir dajeeg moom ca gawar ga xaarij al balad fa génn dëkk ba fa yashtariha minhum hunaak mu jënd ko ci ñoom foofee summa yudxilaha fa yubiaha kama sha gannaaw ba mu daal di koy dugal ci dëkk ba jaay ko nam ko neexe lama fi zalika min at-ta'ghrir bi ashaabi sil'a ci lam nekke ci loole te la nga xamee ne nii mooy wor bu mën a am ca boroom marchandise ya wal idraar bi ahlil balad ak lor ga ñu mën a lor waa dëkk ba min attujaari wa gayrihim la doon commerçant ya wala ñeneen ñu dul commerçant wa lidalika qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci loolu la yonent boo xoon ni laa talaqu rukbaan bu leen dem di dajeeg gawar ya wala yabi xaadirun lil ba li baadi ki dëkk ci dëkk bi bu mu jaayal keneen mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu araamal rek walaay da ngay gis ne noonu la am na benn année ci boori ay quatre vingt trois quatre vingt quatre yooyu xar dafa manqué lool moom ay mbokk yoo xam ni ñoom yëguñu ci dara ndax xam ngeen rajo yi demewul woon noonu ñu ngi jóge ca àll ba côté Njàmbur di dàq seen ak jur di dàq seen ak jur bii nga xamee ni nii xar jeex na Dakar am ñu dajeeg ñoom boori jam ñaajo yooyu ramas seen xar yépp ñoom ñuy jàpp ne def nañu aw kaani mais biñ ñëwee Dakar ba gis na xar yañ jaay ca àll ba cinquante mille buñ ñëwoon jaay ko cent cinquante mille ku nekk di bëgg a rey boppam yaa ngi dégg loolee kon nu ko yonent bi tere rek noonu la nit ki ñëw di ñëw ci dëkk bi buñ ko dogaale mukk mu xamagul la xew ci dëkk bi nga dogaale di jëflante ak moom ndax la ca mën a nekk ci woor ak it gis ngeen lor waa dëkk bi ndax ñooñu mën naam buñ ñëwaloon seen bopp mën nañ ko jaay lu gën a yomb waajee dem jënd ko jublu ci lay di ak naxaate loolu kon mbokk mooy fukkeel bi ak ñaar fukkeel ak ñetti bi lislaam araamal ba tey mooy bayul musarra mooy njaayu loo xam ne dañ ko dajale laa yajuuzu lil muslim an yusarriya sha du dagan ci jullit mu dajale soow ma ca lii nga xam ne mooy weenu xar ya nag ya giléem ya aw baqara aw naaqa mi ngi noonu bi maana yajmau labanaha fi diriha fi dariha ayaaman mooy mu daal di dajale meew ma ca battu xar ya mooy weenu xar ya ay bis li tura wa ka annahu xalu di ko wone mel ni kat kii day ku bëri soow la fa raxiba annaasu fi shiraiha fa yabiaha su ko defee nit ñi xemmem lool ci jënd ko bu ko defee mu daal di koy jaay loolu dafa xaram lama fi zalika min ghish ndax loolu war la wal xadia naxaate la qaala sallallahu alayhi wa sallam laa tasurru al ibal wal ganam bu leen dajale sooma ca weenu gilim ya xar ya fa man ibtaaha baada zalik waaye ku jënd gannaaw loolu day fa huwa bi xayri nazarayni day jël te lan moo ko gënal ci ñaari gisin yi baada an yaxlabaha gannaaw ba mu ko rattee in radiyaha amsakaha su ko gërëmee mën na ko téye wa in saxitaha raddaha wa saan min tamr su ko bañee mu delloo ko ak benn saa ci tàndarma mi ngi noonu bokk lu mel noonu la ñuy def léeg-léeg ci saaku ngooñ yi di ko def ci saaku gerte yi te mooy funkil ko ba nga jàpp ne nii la demee fekk dara amu ci bañ koy jàng dimanche bu la it waxoon nañu nin boo ñëwee Sénégal waxuma sow la ñuy dajale ci weenu xar yi waaye xar mi ci boppam la ñuy sol ba mu ne dadd daddaaral ba ku ko ku ko gis ci xamoo xar nga jàpp ne ah lii day xar mu duuf la waaye boo ko fanaanoo rek moom mi ngi noonu suñu delloo ci fukkeelu njaay ak ñeent bi di salaam araamal mool ayib al bayu inda nidaa il axiir li salaati al jumaa mooy julit di jóg di jaay gannaaw nodd gu mujj ga ci bëccëgu ajjuma ca ba ñuy julli ajjuma laa yajuuzu lil muslim an yabia shay'an aw yashtariya du dagan mukk ci jullit nga jóg naan da ngay jaay wala jóg naan da ngay jënd waqad nuudiya li salaati aljumua nidaau l axiir fekk noddal nañ ajjuma nodd gu mujj ga alladi yakunu maahu limam ala alminbar boobu nga xam ne day fekk imaama nga ca kaw minbar ba li qawlihi taala ya ayuha alladina amanu ida nuudiya lilsalati min yowmi aljumua fasaw ila zikri llahi wa zaru lbay sunu borom mu ne su dee noddal nañ ajjuma na ngeen dem ca julli ga te ngeen bàyyi jënd ak njaay nodd googu nag comme ni mu la ko waxee mooy nodd gi wane ne imaam ñëw na waaye du nodd gu jëkk ga amma bu ñu delloo ci fukkeelu njaay ak juróom bi lislaam tere mooy li ñuy tuddee al muzaabana awil muxaaqala mi ngi noonu dana la ko leeralal ci biir laa yajuuzu lil muslim an yabia rinaban fi lkaram xarsan bi zabibi kaylan du dagan ci jullit nga am sa toolu raison toolu raisin nga ñëw daaji ne a tool bi day war na nekk masalan ñaari paani raisin am koo xam ne dafa am raisin boo wow mu ne kaay ma jox la ñaari paani raisin ca féetewoo tool bi loolu mooy muzaabana mooy jaay raisin yi bu tooy ci raisin bu wow wala zar'an fi sumbulihi bi habbin kaylan naka noonu it tool boo xam ne ma nga ca ay gubam da doon dugub la mboq la kenn du ñëw ne ah tool bi day war naa nekk fukki saako dugub kaay waay ma jox la fukki saako dugub te féetewoo tool bi loolu mooy muxaaqala gannaaw bi it wala rutban fi naxl bi tamrin kaylan kenn du jaay tàndarma yu tooy ca tàndarma ga ñu koy jaayee tàndarma joo xam ne dafa wow ci loo xam ne dañ koy pesé illa bay al araya faqad raxasa fihi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam lu dul jaay tàndarma jañu mi ngi noonu maye woon yonent bi yombal na ci loolu wa huwa an yahabba almuslim li axihi musliman muslim naxlatan aw naxalaat laa yatajaawazu tamruhunna xamsatu awsuq benn waaye ngi nii ci toolam mu may mbokk julitam ay tàndarma yoo xam ne buñ ko pesé woon du mat juróomi awsuq muy 600 kilos suma yetadarrara bi duxulihi alayhi kullama araada an yajnia min rutbihi gannaaw ba mu ko ko mayee mu yëg ne kat waa ji li muy dugg ci toolam di dem ca tàndarma yam ko may di dagg yi di witti yu tooyee da koy sonal ku mel noonu moom fa yashtariyaha minhu bi xarsiha tamran kooku mën na koo jënd te la muy war a tollool ci tàndarma bu wow wa dalilul awwal tegtal bu njëkk ba ne loolu dañ koo tere qawlu ibnu omar radiallahu anhuma naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil muzabana yeneen bi tere na almuzabana walmuzabana an yabia tamra xaitihi ca loolu mooy nga jaay sa tàndarmay tool in kaana naxlan bi tamrin kaylan su dee dafa nekk ay tàndarma ca garab ga nga jaayee ko ci tàndarma boo xam ne dañ koo pesé wa in kaana karuman bu dee ne dafa nekk ay raisin an yabiaha bi zabibi kaylan nga jaayee ko moom it ci tàndarma bu wow boo xamee ne nii dañ koy pesé wa in kaana zar'an naka noonu it bu nekkee am mbay an yabiaha bi taam nga jaayee ko la nga xam ne ak beneen lekk la kaylan ci lu ñuy pesé naha an zalika kulli yonent bi dafa tere lii lépp wa dalilu saani bu dee tegtalu ñaareel bi wone ne kañ may tàndarma moom am nañ droit jënd ko ci moom donte ne wéttaguñ ko qawlu zayd ibnu saabit radiallahu anhu an nabi saa sallam raxasa li saabi al ariya an yabiaha bi xarsiha yonent bi daana yombalal ka nga xam ne daa able woon ay tàndarma mu daal di koy jël te natt ba nga xam ne nii moom lay tollool mi ngi noonu na am mbokk yi xam nañ ne téere bi moon ci yóbbu waaye jafe na suñ jamono tey bi kenn ci ñun rawatina waa Dakar di dund lu mel nii amma bi ci mujj bi mujj ci njaay yooyu ñu araamal mooy bay usuniya mooy jaay loo xam ne dafa am luñ cee génne laa yajuzu lil muslim an yabia shay'an wa yastasniya ba'da du dagan ci jullit muy jaay benn mbir am lum cay génne illa an yakuna ma yastasnihi maaluman lu dul lam ca génne day doon lu ñu xam fa ida baa bustanan masalan su jaayoon benn jardin la yasixu an yastasniya minhu naxlatan aw shajara gayra maaluma du dagan mu ne ko jaay naa la ko de waaye benn tàndarama bi moom wala benn garab gi bi moom bokku ci te leeru lu ñu ban garab la wala ban tàndarama la ñu ngi noonu lima fi zalika min al gharar ndax loolu nekk na ca ak war al muharram wa zalika li qawli jabir radiallahu anhu kii di jabir da daan wax ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an al muhaqala wal muzabana wa sunya illa an tu'lam tere nañuy jaayante loo xam ne dafa nekk ca gub ya wala ca tool ya ñu koy jënde loo xam ne lu waw la wala ñuy jaay ca leeru lu ñu exactement la ñuy jaay naka lay demee bu ñëwee ci juróomeelu bunt bi mooy fi bayi usuli simaar lan la lislaam wax ci ki jaay moom lii di dattu meññente ya ay jaay la garab ya ci boppam la jaay ida baa al muslim naxlan aw shajaran jullit bu dee dafa jaay benn tàndarama wala mu jaay benn garab fa in kaana naxlu qad ubira su dee tàndarama de day dañ koo góoral te mbokk tàndarama bokk na ci xikma borom bi bu demee ba génne ay fleur fokk dañuy jël ci fleur yu góor yi tóor tóor yu góor yi sànni ko ci tóor tóor yu jigéen yi ca lay doog a meññ en général loolu boo ko deful presque du meññ gis ngeen léegi nag bu dee ne tàndarma joojee kon góoral nañ ko wa shajaru qad zahara samaruhu bu dee garab it ñu gis ne meññantam ba ma ngay feeñ fa inna samarata lil baa'i su boobaa day meññeenti ba cay solo yé ba cay génne yépp ka jaay tool ba moo koy moom illa an yashtaritaha al mushtari xanaa lu dul ba ñuy jaayante ka jënd tool ba ne ah meññent bi ci jóge kat maa ko moom wa ila fa hiya lil baa'i waaye bu dul loolu waa ji jaayoon toolam ba dugal ci poosam it meññent ma génn avant muy jaay tool ba meññent boobee moom la ko lislaam jagleel moo ko moom lu dul ne da ko chartoo ka ko jënd rasul sallallahu alayhi wasallam mu ne man baa naxlan xad ubbirat ku jaay tàndarma boo xam ne góoral nañ ko fa samaratuha lil baa'i mboole meññent ya fay jógee day doon ñeel ka nga xamee ni moo ko jaay illa an yashtarita al mubtaa xanaa lu dul ne da ko chartoo ka nga xamee ne nii moom mooy kay jaay njaay moomee kay jënd jënd moomee naam mbokk kon loolu moo aju woon ci façon njaayin yi nga xam ne islam da koo tere donte ne ni naa des na quelques minutes avant ñuy noddu lii nga xam ne nii moo ci tege moom mooy li gën a yaatu mooy albaabu saadis te mooy fi riba fi riba wa sarfu ak la nga xamee ni ni mooy weccante awalan riba taarifuhu buñ la doon jàngal lan mooy riba الربا هو الزيادة في أشياء من المال المخصوصة mooy ñu dolli ci ay mbir ci alal yoo xam ne dañu ko jagleel wa huwa nawaan riba ñaari façon riba al fadl mooy riba gënalante ca la ngay weccante di ko jaayante wa riba nasi'a ak ribaab lebal nit ki ba mu lay fay mu teg ca dara fa riba al fadl bu dee riba gënalante huwa yabiu aljins alwaxid mimma yajri fihi riba mooy nga jaay benn mbir boo xam ne riba da cay dox muy benn bi jinsihi ca lu mel noonu mutafaddila nga gëne la ko wa dalika ka bayi qintaari qamxin bi qintaar wa rubin min alqamxi masalan mi ngi mel ne rek waa ji indi woon la nga xamee ne nii dafa nekk bërigo ci wàllu blé blé bi doon bu rafet nga jaayee ko nga jënd ko ci moom bërigo ak kaar ci beneen blé bu bokkul ak loolu aw bay u sa'in min tamr wala ki am tàndarmaam di rafet nga ñëw jënd ci moom benn saa ci ta ci tàndarma bi sa'in wa nis min tamrin masalan mi ngi noonu nga jënd masalan indi ñetti ñetti kiloy tàndarma ci tàndarma ju suufe nga jënde ko ñaari kiloy tàndarma ci tàndarma ju baax aw bay i uqiya fidaa bi uqiya wa dirham min fidaa masalan wala ki indi xaalis piir mu indi ca lu rafet nga jaayee ko beneen xaalis boo xam ni lam ko jaaye mooy moo moo yiis lii kon bokk la ñuy tuddee ribal fadl mooy bépp marchandise boo xam ne daa aju ci lekk wala mu aju ci monnaie heure bu ñu koy weccante dafa war a yemoo kenn waru koo ëppalante lu dagan mukk waa ji ñëw masalan indi saagu ceebu karolinam ne borom bitig bi léegi jox ma ñaari saaku ceeb ci ceeb bu sew bi ma jox la ceeb bi déedéet islam du nangu loolu gerte du nangu loolu lépp lu aju ci wàllu lu ñuy dundee islam du nangu loolu su ko defee lan la ñu yonent bi alayhi salaam doon wax mooy kam yebaloon ci xaybar mu ñëw indi la ko tàndarma ju rafet yonent bi gis ci benn défaut mu ne ko waaw tàndarma xaybar ni la mel mu ne ko déedéet waaye tàndarma dañ faame woon dama ko jël jënde ko benn ñaari saa ci suñu tàndarma ci tàndarma ju rafet ji yonent bi alei salaam na ko bul defete loolu mukk heure boo bëggee loolu jëlal sa tàndarma nga jaay ko dem jëndi tàndarma bi nga bëgg kon su boobaa it yow da ngay ñëw ne borom bitig bi sama saako ceeb bi dama la ko bëgg a jaay ngeen waxaale mu ja nga jaay ko ko ci xaalis ba pare lan ca am nag bu la neexee jënd ci ceeb bu la neex waaye doo ñëw ne ko jëlal dugub ji jox ma dugub ceeb bi ceeb xorom bi xorom lu mu mën a doon même or bi tey nga indi sa or say takkaayu or ngi leen ñu jox la takkaay yu gën a kawe loolu lépp mbokk da ngay gis bu jëmee ci or ak xaalis bu jëmee ci ab dund heure bu ñu koy weccoo dafa war a yemoo loxo ak loxo waaye kenn waru ko ëppalente kon mbokk yéen yi ngi noonu dégg nodd gi incha allah xam naa dañuy doyloo loolu ba yàlla dajale waat ñu fi ak jàmm wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wala kulli xaal bu ñu wax waajib rawatina ci wàllu li nga xam ne mooy aj bu ñu wax waajib ci li nga xam ne mooy aj mooy loo xam ne boo ko deful da ngay war a rey ab gàtt loolu la ñuy tudde waajib bokkul ak li nga xam ne ay ponk la soo ko deful aj gi day yàqu mais waajib moom mooy loo xamee ne nii boo ko deful day da ngay war a rey ab gàtt bu dee dañuy wax waajib ci julli muy loo xam ne boo ko bàyyee fekk yaa ko tey julli gi day yàqu amma boo ko teyul su boobaa da nga koy sujuutal amma bu dee ne ponk moom fokk ponk moom da nga koy indi na doon da nga ko fàtteem nekk ko fàtte fokk moom da nga koy indi wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaleykum salaam wa rahmatullah naam ala kulli xaal daal li lislaam di tere mooy nga jënd ci ka jóge ca biti dëkk ba nga jëflanteeg moom jëndanteeg moom ca xamagul li xew ci biir dëkk bi ca xamagul li xew ci biir dëkk bi amma bu dee ne yow da nga ànd ak moom ba ca marché ba moom nga nekk premier client am loole moom seeni charte la ñuy xool waaye daal bala nga jëflante ak moom fokk ñu bàyyi ko ba moom mu laaj ba xam ban prix moo nekk ci dëkk bi ndax liñ ciy bañ rek mooy nga jëflanteeg moom te mu xamul lu xew amma bu dee ba xam ne prix dëkk bi lii la su boobaa dara nekkul ci jëflante ak moom wallahu subhanahu wa taala alam naam bu dee dugub ak soow du dugg ci ribal fadl dugub ak soow bépp marchandise boo xam ne ni bokkuñu nature su boobaa dara nekkul ci ñu ëppalente ko la ca lislaam di charte rek mooy am indi islam du ci nangu ma dem ba ñëw ak ba suba déedéet tey ji lii nga am dañu koy weccoo am indi mi ngi mel na or ak xaalis mënees na koy weccoo gën ëppalente ko waaye nag day doon am indi ki yor dugubam ki yor soowam ki yor xoromam ki yor gerteem yooyu yëpp mënees na ko ëppalante waaye am indi ndax li waral loolu mooy tey jii kilo dugub mën nay jar deux cent tey jii li litre sow di jar deux cent ngeen weccante ko yow comme problème waaye suba rek buñ nee nañ bàyyi bu suba ma indi sow mi fii ak suba sow mi mën naa wàcc wala sow mi mën naa yéeg looloo tax yeneen ci bari sam danaan isa kaana yeddan bi yeddin heure boo xam ne yéen a ngi weccante lu bokkul bu ngeen koy weccantee ni lu moom dara nekku ci wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal bokk na ci liñ doon wax rek mooy bokk na xale yi lu ñu dugg léegi mi dañuy tudde vente en ligne loolee da ngay gis ñoo xam ne daanaka dañu yor magasin yu rëy rëy rëy te yoruñu dara mi ngi noonu lu ne en ligne dañ koy def ne am nañ lii am nañ lii am nañ lii ala kulli xaal nañuy ci bàyyi xel ci ne amoo droit di jaay nit ki di jël xaalisam te fekk ne la nga koy jaay amuloo ko sooy def vente en ligne it na doon képp koo xam ne da ngay waxaale ak moom waxante leen ba fixé la ngeen di fixé nga dem lijjanti marchandise ba am ko doo ko jël ab xaalisam waaye waroo nekk di jë di jël xaalisu nit ki di ko jaay loo xam ne amaguloo ko loolee ñu bàyyi ci xel bu baax rawatina ci ndaw ñi niñ ko jëlee suñ jamonoy tey jii wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal mbokk kon mi ngi noonu ndax lu ci des bari na mu ne mu ne waaw mbokk ak du- waaw mbokk ak dugub mi les na koy weccee li ñuy bañ mooy dugub yi ci seen bopp wala mboq yi seen bopp mais bu dee mboq la ak dugub loolee mënees na ko weccoo da ngi noonu lépp loo xamee ni daal nekkul benn melokaan su boobaa weccoo ko ëppalante dara nekku ca charte bi rek mooy mu nekk yaddan yaddin bi yaddin te suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam moom nga xam ne yàlla ko xamal tey jii ñi xam problème change da ngay gis ne tey la dollar bi nga xam ne mën nañu wax moo fi représenté or leneen représenté xaalis tey mën ngaa wax ak nit ki léegi ci dollar masalan ngeen wax ne dollar bi danaa ko jënd six cent vingt cinq tey jii ñu dem ci banque bi banque banque affiché six cent vingt cinq yéen ngeen dugaloo ci banque bi yaakaar naa suñu mbokk bi Cheikh Ndiaye yàlla na yàlla sàmm ko mas na lu mel mas na ko dal da ngeen di rang nii di ñëw di rang nii di ñëw kii ñëw ñu affiche six cent vingt cinq mu mu mu mu mu jaayee six cent vingt cinq ki ci gannaawam ñëw affaire bi daanu nekk six cent wala six cent vingt gis ngeen te fekk yéen a tegaloo nii loolu ci minute yu ndaw prix bi changé complètement loolu kon la yonent bi alayhi salaam waxoon na yaddin bi yaddin yàlla moo ko ko wax loo parce que yow mën ngaa wax ne ah non ma dem fii ñëw garaawul yonent bi ne déet buñ def loolu su ngeen demee ba def change na nekk yaddin bi yaddin rokkim rokkim jeex na noonu la ko pulaar yi waxee waaw loolu bañ demee nag ba jamono dox la ñuy lislaam xamal ne li yonent bi alayhi salaam wax rek mooy dëgg loolu mbokk mi ngi noonu moo tax diine moom lañ ci comprendre ak dañ ci comprendre yépp mooy sami'na wa ata'na mooy dégg naa rek topp naa suñu mucc ci loolu rek la nekk waaw mbokk mi ngi noonu kon xam naa ah ah waaw su ah su dee ne daal dafa nekk dugub boo xamee ne nii dafa nekk benn jins mooy benn façon dugub la bu ñu xam nga xam ne moo ko moo moo dañ naan dugub la saañu lañ ko ah waaw su na ah su nag saañu bu amul différence kenn waru ko kenn waru ko ëppale kenn waru ko ëppale maadaama dafa nekk benn jins waaw waaw ala kulli xaal loolu bay loolu ñu nekk sàll bi ñoo ko xam li ñu xam daal mooy lépp loo xam ne dafa nekk jeans kenn waru ko ëppale amaa nag bu dee dafa changé su boobaa mënees na koo ëppale loolu mooy noonu na xam ngeen ceeb yi ñaata façon ceeb moo am kenn xamul nu mu toll te yëpp ceeb lañ koy tuddee dugub yi it kenn xamul nu mu toll yëpp dugub lañ koy tuddee maa daawee benn jeans si la dañ ko kenn waru su ko ëppalee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam boo demee si dëkku àll yi sax ñoom dañuy jël pàcc bi boole ko dugubu suuna bi daal di ko boot moom ñaar.
voilà voilà mi ngi noonu yaakaar naa kii ma ma wa- waaw suuna du am kawar mais change moom bu bukkee day am kawar day am ay
waaw waaw waaw lii xanaa dafa nga a benn benn gis la rek waaw waaw waaw ala kulli xaal loolu moom yaakaar naa ñun waa Dakar moom mën nañu bañ a discuter ci loolu yaakaar naa yàlla nañu yàlla defal tawfeex waaw mi ngi noonu wallahu su ah waaw bisimilah waaw waaw ñu mujjee ci mbokk bi rek waaw waaw waaw waaw
maanaam ñu jox la mandat nga dem wut sa maçon wut sa architecte wut sa lépp waaw léegi après yow ngay fay ci ab ba ba ba est-ce que dañu ko ci fay wala ñàkk waala kulli xaal loolu day même bu dee am na yenn borom xam-xam yu koy daganal ñun ñi ngi ànd ak borom xam-xam yi ne daganut banque bi kii ñëw leb ko cent millions mu jox ko cent millions mu dem ak kee ñëw indi projet këram te dafay tabax kër gi kër gi cent millions lañ koy tabaxee banque bi ne waa d'accord danaa ko tabax mais yow cent vingt millions nga may fay comme cent millions ba mu jox kële banque soxlawul kër soxlawaanul kër li ko itteel mooy dana investir ci yow cent millions da nga ko fay cent vingt millions loolu ko itteel loolee mbokk mbir la boo xamee ne nii day dugg ku mel ni Cheikh Ousaymin baat boobu nga wax la wax mooy bay ul ay na la mooy naxante la ñuy def ak yàlla kon daal ba banque bi amee ay këram kër gi lu mu la ko lebele nga ñëw leb ko amul problème waaye ñëw na banque kaay tabaxal ma man ma fay la te wóor na la banque bi li mu lay tabaxal yow da nga koy fay intérêt banque soxlawul toppatewul kër gi li koy itteel rek mooy jox la nga fay ko intérêt loolee mbokk julit da ko war a moytu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw